bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Afee ñang nag doomi soxna aw buso la mbokk ak Cheikh Mahamadul soxna aw buso waaye buñ ko bëggee taarif rek xamle mooy kan sëriñ Afee dafa soto ci maam maaram ñetti yoon ndax bu fekkee danga wax sëriñ Afee way juróom wu góor sëriñ Abdou Ñang la tuddoon sëñ abdu moomee waaye juróom wu jigéen soxna Kumbaan Mbàkke la tuddoon soxna Kumbaan Mbàkke moomee doomi Ahmadou soxna Bousso la Ahmadou soxna Bousso maam maaram la sëriñ Abdou moomee nga xam ne mooy way juróom góor sëriñ Afee mag sëriñ mu mag mi nga xam ne mooy way juróom doomi Assa Mbàkke ñang la mi nga xam ne ci taawi maam maaram yi la bokk waaye it bu dee way juróom wu jigéen mu bokk ak Cheikh Mahamadul Fadal moom it euh, sëriñ soxna aw Bousso sëriñ Bousso bi maam Assawalo Ahmadou Soxna bu sama maaram kon noonu la bokkee ak yoonu murid wépp waaye nag am cëru boppam nag bu mu bokk ak Cheikh Mouhamadoul Fadal mi xam ne mooy borom bis bi. Sëñ nag li gën a fës ci ay jikkoom nga xam ne mën nañ koo wax mooy ab taalibe la boo xam ne dafa bëggoon Sëñ Tuubaa goo xam ne li koy firndeel mooy ku teel a jëbbalu ci Sëñ ndax bi feree rek la ko way juróomu góor jëbbal Cheikhul sëriñ bi nekkee ci géej gi it wax na ne way juróom woowee fekk na boobu sax ñibbi na maanaam dem na barsàq waaye Cheikhul Xadim dafa wax ne waaye juróom da ko feeñuwaat fa nekk ci barsàq di ko di ko feddaliwaat jébbal gum ko jébbal sëriñ Afe moo waral bi mu ñibbisee rek dafa daal di wax soxna Awa Boussa fan fan nga fan la fan la nekk mu ne ko ma nga jolof mu ne nañ ma ko andil ba mu ñëwee da koo wax ne ko sa way jur dafa ma laa jébbalaat ndax feeñu na ma fee ma nekkoon ci liggéey bi ba jébbalaat na ma la sëriñ Afe ne ko alhamdulilah rabbil alamin ndax sama way jur woowee kat xaw ma ko bay xam ci moom dara waaye moom yow mi nga xam ne yow la yàlla may nga mën koo gisaat fa mu nekk ba jébbal ma la loola yaa ngi moom la woon waaye man sama jëmmi boppit it na la sama bopp adduna ak àlaaxira nee na Cheikhul xamal ko ne ko na nga delluwaat àgg la ji sam njàng fekk boobu mi ngi ci mi ngi jàng alxuraan waaye booy ñibbisiwaat nag booy ñëwaat na nga indi say bagages na nga na nga xam ne da ngay ñibbisi mu daal di delluwaat jolof àggale am njàngam daal di ba noppee mu daal di ñibbisi bi fekk sëñ bi nee na koon foo ma dégg ci réew mi rek nag ma fekk kon sëñ bi booba xamoon na ne du fi sax ndax ab diir la fi am rek ñu yóbbuwaat ko gànnaar waaye sëriñ Afee ndigalul sëñ Tuubaa ba mu ba mu ba mu ko jotee rek ba mu dégg ba mu ñëwee dafa laaj ana fu sëñ bi nekk ñu ne ko ma nga waru wàllu gànnaar mu daal dox fekk ko wax ne ba muy dem moo ko sëñ Abdou Dia Duyole moom la àndaloon fekk seeni kaamil noppi ak euh, mbokkum mbokkam mbokkum sëñ Afee moo xam ne ñoo bokk way jur ñoom ñaar ñoo ànd dem muy alaaji sëriñ seexu sëriñ seexu ñang yi dëkkoon fii ci boor yi fi ñu wax xulle wax na ne ba ñuy dem bañ dañoo dox bañ àggee ba ci frontière ba fa lañ fekk maam Cerno maam Cerno ne leen yéen de sëñ baa ngi leen di laaj waxtu nekk ndax egsi ngeen ndax booba dem gànnaar yombutoon ndax ku fay dem dañ lay segg waaye ñoom sëñ bi dana leen ñoom ñoom bu ñu nañ leen daal di bàyyi ñu agsi ndax boobu fekk na lépp lu góor di man mën nañ ko ci xeeti liggéey yëpp waaye alxuraan yi nee na mane woon nañ ko manin woo xam ne ndax fo fay nekk ak sëñ bi da ngay mën alxuraan manin woo xam ne alxuraan ji du yàq liggéey bi waaye liggéey bi du yàq alxuraan ji maanaam jàng alxuraan du la tee liggéey liggéey du la tee jàng alxuraan waaye ñoom fekk tàggat nañ leen ci wàll googu wax nañ ne ba ñàggee ci sëñ Tuubaa dafa yéemu ci ñoom lool ndax boobu ay ndaw lañ na leen fan ngeen jógee ñu ne ko ñu ngi jógee ci réew ma nan ngeen def ba ñëw fii ñu ne ko dañoo dox ndax booba yoon wi lu ne dana fi dana fi gaare am na ñoo xam ne àgguñ ci yoon wi lañ des waaye ñoom nee na dañoo sëñ bi dafa yéemu ci ñoom ne leen lii de yar bu baax rek moo leen bu baax moo tax ngeen mën a doxee ci réew ma ba fekk ma fii ku am sa doom te yoroo ko de ëllëgee ku am doomam yar ko da nga xam ne am sa doom yar rek moo solo daal leen wax ne mbëgg ko fa nekk bokk na ca damay tënk rek waaye wax bokk na ca nañ fa nekkee dafa wax ne sëñ bi da leen wax ne fii nag neexut dama bëgg ngeen gore te nekk fi te ngeen xam ne saxaaba yi ñooy seen i bàyyi ci diine naari gànnaar yi de lii ngeen di gis ñu ko fi indi ndax booba sëñ bi fañ ko yóbbu ci gànnaar mboolem ñi nekkoon ci réew mi doon cheikh yi ñi fi nekkoon ñëpp lu nekk dañ ko daa defar ba mu yéwén ñu ko yóbbul sëñ Tuubaa foofu ci gànnaar waaye luñ ñu fa mas a indi sëñ bi da koy sarax gànnaar da koy sarax naar yi ba noppi naan leen ba ma fa gis kenn ku fey dem di fuuti dara ndax ku fa dem di fuuti dara da nga yàqule loolu la leen daa wax daan leen ndax yàlla mi bind àjjana bu ko soxla woon kon ñun duñ ci jot lam leen jubloo woon a xamal mooy lii ñu fii andi su ma ci soxla woon dara ñoom ñu ko am ba ko fi andi kon duñ ko am. ñu nekk fa noonu nekk fa noonu nekk fa noonu fa doon fa jëwrin daare kaamil ja ba juróomi at yi mat sëñ bi ñëwaat fii ci yéen mu ànd ak moom nekkaat ak moom fii ci jolof ci ba noonu mu nekkee woon ak sëñ bi noonu la nekkeek moom ba nuñ ko noppee gis ba ni ko sëñ bi wàccee waaye 1913 yooyu boobu leen sëñ bi wàccee taxut mu tekki laxasaayam waxtu nekk. mi ngi jóge fii di dem njaarim di fekk sëñ bi di ko siyaare ji wax nañ ne siyaare yooyee saabu ko ma sànni def mook Cheikh Mahamadul Fadal ak Soxna Awa sa ñoo ko daa ànd ay yoon yoo xam ne ñooy ànd jóge Touba dem siyaare ji sëñ bi waaye dama cee wax ñett rek yoo xam ne sëñ bi defal na leen ko ci ay jagle wax na ne am na bis boo xam ne dañoo siyaare sëñ Touba bay waññeeku sëñ bi woowaat leen ba ñëw mooy leen yéen ñett ñi de maa leen warlu tàbbi àjjana daal di maasale ba mu ba suuf ba mu ba mu kii fàkk ci suuf nee na bind ca damintu du xoole mul janna maa seere seenu tàbbi àjjana ëllëg nee na ñu bëgg a dem sëñ bi na leen jël leen ko yóbbuloo ko nee na ñu daal di fàkk suuf soosee suuf soose bañ génnee dañ ko def ñetti xaaj boole ñaar yi muy sëñ Afek sonaw bu suñoo boole seenub xaaj benn xaaj bi ñu jox ko sëñ Fall loolu li ko waral mooy sëñ Afek moom sonaw bu su da ko daa wax ne yow Afek yaay sama doom sëñ Fall nag mooy suñu sëriñ maag yow moo tax ñoom ñoom sëñ Afek fu mu mos a toll sonaw bu su moom la daa tànn di dëkk ak moom ndax ñi mu wutoon sëñ Fall ndax da daa wax ne mooy seenub sëriñ ñoom ñaar yoonu ñaareel wi nee na dem nañ siyaare ji sëñ Tuubaa bay wàññeeku nee na soxna woo ne sëñ say say seexul xadim sëñ Aafi mi ku baax la nee na sëñ seexul xadim ne ko alhamdulilah rabbil alamin ndax man de baax laa bëggoon ci moom kon loolu defal na leen ko ak ay xususaat yoo xam ne dox na seen diggante ak seexul xadim yoo xam ne buñ ko doon lim du jeex ci seen diggante ñoom ñett bëggoon sëñ fal lool nag mbëggeel goo xam ne dafa ëpp ndax jàppe ko doomi sëriñam jàppe ko muy ab sëriñam jàppe ko it muy ab xaritam wax nañ ne sëñ Fallou daawut am lenn ndab luñ daa defar andi ko ci kër gi mu jëfandikoo ko te sëñ Afe daawu ci am wàllam waxtu wu nekk lu daawut daawut xewloo lenn lu sëñ Afe amut sëñ Afe it amutoon soxla ci lenn lu dul sëñ Touba si sëñ Fallou moo taxit bii yàlla dogalee sëñ Fallou nekk xalif général de Mouride mu andi ko jox ko barabu sëñ Touba bi mu yoral ko ko bi mu ko ko yoralee la ca gën a yéeme mooy ba mu koy defaraat baraag ba nga xam ne moo tiimoon sëñ Tuubaa ñu daan ko wax borom baraag bi sëñ la ko jox ne ko dama la yóbbu ko sa kër mu ne moo këppal ko mu nekk am néegu boppam kon loolu ak cofeel munu ko weesu kon seen diggante daal euh, ak cofeel la woon waaye nag euh, sëñ Aafi it euh, jàppee ko muy ab sëriñam sëñ Fallou it jàppe ko muy magum taalibeem looloo doxoon seen diggante wax nañ ne sëñ Aafi mboolem njabootu sëñ Fallou lu ci ëpp bu moom la sëñ Fallou daa yebal bu fekkee ku ñu war ku war a joxe aw tur moom la koy wax sëñ Afia it mus am soxla wala mu amub dogal ci biir këram léppam sëñ Fallou ko daa defam kon lii Cheikh sëriñ Cheikh Oumy Mbacke def muy fàttaliku sëriñ Afia te it njëkk koo def tey ndax ba ma ko xàmmee ba léegi lu mos a def rek cëral na ci sëñ Afia màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne amuñ lu dul moom lu nekk la fay indi ci ay teraanga di ko terale njabootu sëñ gi kon nigul ba tey rek mu di ko fàttaliku wala mu koy tudde bis kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ci turu njabootu Sëñ Aafiya gépp di ñaan bis bi yàlla na ci daje ngërëmul sëñ Fallou ndax moom de moo ma waxal boppam ne ma bis bi de li ma ci jublu ni ko sëñ Lamine waxee léegi damaa xool xool aw ma dara lu ma mën a gërëmee sëñ Fallou ma wooteel ko bis su ma ko woote woon ba ñëpp ñëw toog ba ngoon jot ñëpp dem te waxuñ fa benn baatit man loolu laa amee njukkal ci sëñ Fallou kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaan képp ku fa ñëw yal na la sëñ tubaa fay yal na la sëriñ Fallou fay yal na la fa mag ñu baax ñi ñu fay fàttaliku fay di wax képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu fii ci réew mi ci bitim réew na nga ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ko wér te ñaanal ko mboolem njabootu sëriñ Touba gi waaye nga ñaanal sëriñ Cheikh Oumy mi nga xam ne nag léppam sëñ Fallou la léppam sëriñ tubaa la moom it suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te àggal ay mébétam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu